paaka bi ñëw ba noppi mu xàmmee rindi ak rey ki nekk ci xar mi nay waaj te déglu ndigal mboolem ku teew rek nay wax amin sëriñ Abdullahi Diop Xaas tàbbisi na ak bokk yi mu àndul yépp nanuy wax amin ci ñaan gi la bokk yal na yàlla nangu ki nekk ci xar mi bisimilah ki nekk ci xar mi na defar te jox ma ndigal ma déglu imaam ki nekk ci xar mi mbooloo mi imaam jox na gan gu tedd gi aw tur ci ndigalul baayam alxaaji Omar Sakho Balla Gaye 2 bokk yi teew nanu alxaaji Serigne Mbaye ku ni ma buur géwël ku nu tudde doom ji yàlla nga am ngërëmal Seydina Muhammad alxaaji Serigne ki nu tudde doom ji gor su baax la ki nu tudde doom ji keroog bi Balla gën a see jamono yaay Sadio gor su baax sii jur alhaaji Omar Sakho keroog la ma Mamadou Sakho bàyyu Balla Gaye 2 wax ci néegam ni ma keroog sama poos diisan na gan waaye alhaaji Ala Ndiaye moo jël ceeb ba ak enveloppe ba jox ma ni ma demal nga ngénte Balla Gaye 2 kon diggante Balla Gaye 2 Omar Sakho ak Abdoul Aziz Ala Ndiaye ñu tudde doom ji wàcc nga jur na doom alaaji masata teew Pape Matar Lo teew alhaaji Cerno Gay teew Baye Ala Ndiaye teew bokk yi teew ñu ne ko Balla koy tudde sa doom mu ne Abdoul Aziz Ala Ndiaye moom soxna Xujj Jóob mbokk baayam Babacar moom alhaaji Ala Ndiaye surtout ma Lamin mi ci man لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يولد من يشاء إن شاء ويعل من يشاء الذكور أو زوجهم سكرانا وإن شاء الله أكبر nee na loolu li muy dikki mooy nee na nguur yàlla rek ko ko moom mooy bind lu ko soob mooy bind góor mooy bind jigéen mooy xool ku ko neex mu may ko lu ko neex imaam nee moo xam góor la wala jigéen waaye mooy xool ku ko neex mu xañ ko kon bu la yàlla séddee waaye na ko sant nee na xiwal bu nekk na am na responsabilité bu ci tegu nee na alquran dafay wax ni nee na summa la tus'alunna yawma idin anil na'im xiiwal bu ñu leen mën a xiiwali bisu penc dina ñëw nee na daan la laaj xiiwal koo génn nee kon gan gu tekki gii nee na mu doon ak xiiwal am la المكاره وأصرح أمري واجعل فؤادي عزينة الهلوم عن نافعات إنك معتي العليم واجعل جوارحي أوتان هدك إلى جنان سالمات من هدك يا ربنا صل صلاة جالبة إلا رداك لغداك غالبة على الذي جعلني لديه كسعبه مصليا عليه سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمال وخذله منهم فوق المنام وحينك اجعلني سرور الأمنا يا ربنا صل صلاة شاملة للصلوات كلهن كاملة مع السلام لا يظال ناميا مما يضرني جهاتي حاميا على حليلك العبيب عبدك أحمدنا المختار نور جندك وآله وصعبه وتجعل جميع حكمتي ردا تنجعل يا ربنا صل صلاة جامعة كل صلاة ذات ههر قامعة مع السلام نوره لا ينحتيح على الذي به أضايا منقتح سيدنا واحصى به في القال والمال وارفع جميع الصلوات اليوم لك وجنبني الهدى واللوم يا ربنا صل صلاة خائلة بيني وبين كدرات الجائلة مع السلام الجالب لما أحب مزازحا لغيرنا ما لا نحب على وسيلتي إليك أحمدا والآل والصعب وهم ري أحمدا يا ربنا صل صلاة ذاهبة بكل الضر مع السلام الظاهبة لنا سعادة وربحا وفرا يا معنيا عن كنت لي بتوسعة على الذي به تقود للغرض بلا عدا ولا أظن ولا مرد سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمال يا ربنا يا من تعالى نسلنا أن يصلي كل شهر وسنة مع سلامك على المشفع من قاد لي معجل كل مدفع سيدنا محمد والآل وصعبه في القال والمال واكتب له في كل ما من الصدر من قدم قلاوة بلا قدر وجل صلاتي وسلامي خيرا هبادة لك تصفي ميرا واجعل قياتي حبادة تدوم له بشارات تحدم الحديم ورفع لعرشك والكرسي نزمي عاد باسمك القدسي يا الله يا أحد إنك الصمد يا رافع السماء من غير غمد صل بحق هل هو الله أحد على وسلتي نبيك الأحد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وقبله يا رب يوم أحد أولى بشارة لدى كل أحد وجل كتابتي مضى يا خوتا له وضينا يصدري يا حوتا يا ربنا صل صلاة بالسلام على الذي مع العناء والملام وقادني إليك يا رب بك وقدتني بك له بقبك سيدنا محمد والآل وصعبه في القال والمال وهب له يا رب في الاثنين فوق المنى والهاج من منين بغير آفة وغير كدري يا من كفاني كدرات القدر يا ربنا صل صلاة ضارئة كل المفاسد تصر الطارئة إلا سوانا حبل أن تنتحيا يا من لديه ضر حد محيا مع السلام الهمر يسلم من كل ما به تجيء الظلم على النبي والرسول أحمدا والآل وسعد وحتى أحمدا واجعل حروفي كلها هباده yaa man lahu lhibaadu walhibaada wahab li xayril xalq fi qatil bushar yaa xaalixan jahaltuhu xayral bashar wa jutluhu yaa rabbi fi sulaasa bi masdar